waaw fan yii maa ngi gis ñuy modifier photo euh, Khalifa Ababacar Sy di ko turne muy muuñ ak di tourner nañu ko baax dama lay wax ni tekk gi ci seexal Khalifa Ababacar Sy si photo bi bu la doyul bu la doyul nga dem seeti leneen lu la doy xaw rafetal ngeen ci jublu xawma lu ngeen ci mën jublu Mè ba houl. Kili fè ken dou kom manipile. Amou lèn videyo wèm. Moun lèn da ham ni amou videyo. Mè bou nou djel fota bi di kop manipile nou yap lou sou nou sering. Nan nou kop ba. Dou lèn avanse lò dè lèn di tarde lore. Kou marta bam doul bale bon di kom manipile.